bismillah yan mbooloo yow mi yor sa sànce bëgg karole sa kër ba muy nes na si gaawal gaaw seet si waa Taïf Karo ñi ngi fii jàkkaarloog hôpital CTO nee naa la ay karo ya nga xamante ne bii du os du furi da ngay fomp muy gën a rafet fii dong la ci Taïf Karo ji bi Bamba mooy gérant bi karo yu baax yépp fii la ñu joxante rendez-vous ci suñu biir place bi nga mën fi fekk karo italien espagnol wala indien yu ci mel ni ay grès poli 60 60 wala poli 1 mètre 20 nga xamante ne bii pour salon la salle de armoire ay carreaux décoration pâte de verre yu amul fenn ay carreaux faïence pour cuisine wala toilette lépp loo soxla ci wàllu bagget am na fii yow mi soxla ay carreaux parquet gaawal gaaw ñëw fii ci Taïf Carreaux andi leen ay chaises anglaises yu bees tax ya nga xamante ne bii ay nouveau model la wax naa la lépp lu jëm ci wàllu sanitaire Taïf Carreaux moo ci mën ay carreaux grès salam grès émail wala grès poli 60 60 ay pâte de verre ba ci ay plinthe ay marche escalier wala contre marche ay carreaux espagnol 60 40 40 wala 50 50 nga mën fi fekk Jibi Bamba mii nga xamante ne bii spécialiste la ci wàllu jaay karo mbokk yi nee naa la roy du nuroog pire te ki mën ak kiy jéem bokkul jëlal suñu numéro téléphone jokkool ak Jibi Bamba ci 77 745 76 88 ak Taïf Karo seen jafe-jafe ci wàllu karo jeex na tàkk. alhamdulilah ñoo leen seen revue de presse lamb bu tey jii la ca gën a fës suñu lamb di ñu wax ne combat Balla Gaye 2 ak Eumeu Sène bi ñu jàppoon le 30 juillet combat ba reporté nañ ko ba jëmmi jamono ba jamono neex ndaxte kii di Basirou Babou di ménagère bu Balla gay 2 dem na ca CNG déposé fa certificat médical bi wane ne mbërëm mii di Balla Gaye 2 ab tul dafa nekk ci li nga xam si ni moo di ak wéradi te loolee mën na kaa jural ba deux semaines te boobaa bu fi tanee sax fi mën am état bu baax ngir bëre ki nga xam si ni moo di Eumeu Sène ñu ñëw ci keneen ku pare pour bëre moo di Issa Pouye pare na pour jàkkaarloo ki nga xam si ni moo di Albouri xale rimbili rimbili bi ma ngay xam ne ne ko ba wooy promoteur nga ca di ko dox kii di Sambay Fall mooy ki nga xam si ni combat ba intéressé na ko te bëgg na koo taxawal ñu ñëw ci taxawal combat yu neex nekk ca promotion ba moo di Mor Diouf borom production ma nga jëm ci le 16 juillet suñu la mu ñuy xamale ginnaaw giro seras ak Abu Ndiasse ba ci combat bu mag ba am na combat yu ndaw yu neex yu mu ko bootal suñu la mu ñuy xamal ne ndax Ibou Mar Diop daañu ko ubbiwaat ndaxte yi dem na ba 15 août ña nga jàpp ay combat ndax daañu ubbi Iba Mar ndax ñu mën a jeexal combat yooyee ñu ñëw ci kii jóge ci combat moo di Forza bu Fass suñu la mu ñu xamal ne ginnaaw bi ko Franc daane ak léegi kenn déggaatu ko mu yëy yàbbi ci li nga xam si ni mooy wàllum làmb wala sax mu def interview keneen koo xam si ni tamit ñoo bokk écrit waaye moom it looloo ko dal moo di Lac Rose ginnaaw bi mu daanoo ci kanamu Quench ba léegi kenn déggaatu ko mu wax ka tëggoon kombaam di Elimane Lo suñu lam mu ñuy xamale ma nga jëm troisième jour après tabaski fu fay ca stade bu wateel ca diwaanu Louga fa lay tëgee làmb ñu ñëw ci keneen ko xam tamit ci làmb ju rëy la jugee moom Franc suñu lam mu ñuy xamale ak douzième victoire am ci làmb jamono ji ma ngay déglu promoteur yi ngir mën ko proposer combat bu baax suñu lam mu ngay ñëw ci ki nga xam si ni moo di jëm céeri ma ngay artu Ahmed Dem moom war a dajeel ma ngi koy xamal ni le 23 juillet di nga réccu ana lan nga doon jëlee li nga xam si ni moo di sama avance ndaxte combat bi bakkan laa ci teg ñu ñëw ci équipe nationale bu Sénégal ci wàllum làmb suñu làmb mu ñu xam ne xam nañ ki ko remplacé léegi ki nga xam se ni moo di Bafa Gueye moo ko remplacé ci li nga mooy entraîneur u Dakar suñu équipe nationale suñu làmb mu ñëw ki nga xam se ni moo di Bébé Diène di ñu xamal ne mu ngi jëm ci première testam digganteem ak Baye Mandione combat bi ñu nga xam ne jamaïcain moo ko tëgg Baye Mandione suñu làmb mu ñu xamal ne n'a pas droit à l'erreur ndaxte ay combat am fi ñu toll ni victoire yaak défaite ya ñoo ndaxte am na 14 victoire ak 14 défaite moom Baye Mandione ginnaaw loolee ñu sant leen gërëm leen jox leen dig daje ni ki suba incha